de demee day jëlloo Sénégalais yi moom en tant que simple agent dafa daan taxaw Amadou Ba di bëgg a def dara mu ñëw téye loxoom kooku di man administration Amadou Ba fa muy le directeur général des benn agent mooy ñëw na ko nii nii doo ko am ci administration. <laughs> mais. <laughs> Euh, c'est vrai quoi quand fois parce que administration nag. ni muy doxee ñëpp xam nañ ko tam Amadou Ba fi muy toog ci bureau bi décider soo ko moo ñëw man ko doo def li loolu fu mu fan la am ci ban administration ci monde bi la am fu mu am attends man li ma dégg sax selon les informations Amadou Ba Sonko c'était le plus grand défenseur de Amadou Ba fële bi nekkee ci syndicat bi am na réunion boo xam ne bu tëye loxoom ne def kii dañ ciy soppi kenn mënu ko fay soppi te y a beaucoup de témoins fii ci inspecteur des impôts et domaines yu ko doon kii Mame Boye ba ñuy xeex ak Sonko ci syndicat bi parce que Sonko dafa àndoon ak Amadou leen boole woon. Mame Boye Diao. mais bien mais wax na ko sax un jour. et donc voilà. donc Sonko moom vraiment des fois histoire yi ñu raconté boo ko am différence yoo xam ne dafa may jaaxal parce que moom li muy wax moom kese moo koy wax. parce que tous les inspecteurs des impôts de ñu ci ëpp dañ naan la Sonko c'était l'homme de Amadou Ba taxaw na AG mu téye loxo ni kii lu ci def kenn def ko fi et te y a beaucoup de témoins loolu di koy wax di ko fekke donc mais moom dafa mel ni dafay toog histoire bi nekk nii mu am beneen histoire parallèle boo xam ne kenn xamul fu mu jógee mu jël ko rek teg ko ci daal alors. Euh,